jërëjëf Alxaaji Mansour asalaamualeykum mbokk yu tedd yi maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziar ko teg loxo suñu sëriñ suñu mag suñu xarit Mansour Sy Dabakh pour mu jottali ñu ko alif général si jàmm yaakaar si Mansour si wax nga mot jottalil ma nuyoo ak ziara bi mbooleem njabootu si Maam Malik si yàlla taala am ñu waral bés bii ñuy màggal muy guddi juddu euh, sang bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa moom maam Sidaaj Malick am lu réeree lu ci def danaa si ñëwaat léegi may nuyu sa rakk yi fi teew ak njaboot bi di sant bu ma toogee ci bërëb bii sama xel dana dem suñu papa Elhadji Abdoul Aziz Al Amin yàlla yokk leeram di sant njabootam ci turu sëñ Babacar si ak sëñ Moustapha ak seeni rakk di nuyu autorité religieuse coutumière politique nuyu maire dëkk bi ak présidente conseil départemental di nuyu l'ensemble des maires du département de Tivaouane ak mbooleem député yi au conseiller conseil économique mbooleem kilifa yi fi teew ak muxaddam yi ak taalibe yi di nuyu waa Koskas di nuyu waa Tivaouane yëpp ah yaakaar naa ni waxtaan bi lu bari def nañ ko ci sànq ci kanamu xalif bi waaye nag comme dañu nekk ci di waajal gàmmu te ren mu mel ni seen thème bi ngeen jël moo doon sur le chemin droit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous orientons les générations maanaam ci yoonu siraatal mustaqim yoon bi nga xam ne sang bu tedd bi moom la wone ngeen fas yéene teg ci ndaw ñi ak ñi nga xam ne ëllëg bëgg ngeen leen teg ci yoonu islaam yoonu siraatal mustaqim te loolu suñ ko defee fii ci Tiwaawan def nañ lu war a ndax Seydi Malick Sy radiyallaahu taala anhu daf fi liggéey jàngale fi formé fi ay muqaddam muy si njarnde si jagsaaw si tasaare leen ci biir Sénégal yëpp ngir ñu wone li nga xam ne mooy lislaam ak li sunu borom santaan loolu nag dafa am ñu ko wax ñu dul man mii di ay boroomu xam-xam ci lislaam bokk na si témoignage u Cheikh Ahmed Foukhayri di borom xam-xam bu mag bu nekk ci Fès ci réew Maroc ah nekk itam borom xam-xam bu mag ci yoonu Tijaniya ci benn téereem bu ñu tudd Jinnaaya wax na ci moom Cheikh Ahmed Soukhayri que mën nañu jàpp ne si ñu gëna liggéeyal islaam rawatina yoonu Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu mën nañ si citer góor gu mag gu baax koo xam ne ci Sénégal mu tudd si Hadj Malick Sy ibn seen Ousmane Sy nee na leeral na réewam ci leeraayu lislaam jàngale na jàngale na te moom bokk na ci li ñuy tuddee kumaalal rijal muy nitu yàlla yi bu tedd yi nga xam ne yàlla am na lu mu leen may ci xam-xam am lu mu leen may ay may ah dundam yépp daf ko def ci di jàngale éducation ci di former jàngal nañu bare bare formé na ñu bare si topp yàlla ak bëgg suñu borom ñooñu bi mu pare daf leen tasaare muy muqaddam loolu kooku ma leen wax muy Cheikh Ahmed Fuqayri moom moo bind loolu si Soudan Manis lu yàggul ci am na revue maanaam muy téere yooyu ñuy bind léeg ci université université Al Caire revue des étudiants de Lazare def nañu benn présentation ci Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ci jëfam ak liggéeyam lañ ci wax mooy grâce à lui l'islam a connu son épanouissement dans ce pays qui est le Sénégal en créant des écoles coraniques des mosquées et des jardins loolu dafa nekk loo xam ne ay témoignage la kon bu ñu ñëwee ci bës bi ginnaaw waxtaan tànn suñu biir réew war nañu dem di def témoignage nit da fonk li nga am Sénégal dafa am lu fi yàlla def islam góor yu baax ñu ñu booleel suñu maam yi nga xam ne ñoo teeru lislaam tatagal ko daldi ko dugal nag ci biir Sénégal suuxu réew loolu dañ ko war a magnifier dañ ko war a di wax di ko waxtaan am solo la suñu différence souvent ak tubaab yi bu ñu amee lu tuuti ñoom dañ koy fonk bu tuuti loolu dañ koy dañ koy kañ bu ñu lay jox lekk sax dañuy takk lekk dam bu dee ab ganaar la dinañ la ganaar bii su muy tànnee ay pepp ci bërëb bu mel nii la ak bërëb bu mel naa lépp rek pour magnifier li nga xam ne ñoom loolu la ñu am waaye ñun lépp lu ñu am bu dee jamaa sax ñu bëgg ko def korom ñu fonk suñu bopp ñu fonk li ñu am loolu nag du lu gën ci askan moo tax ma def témoignage bi tey ci bés bu màgg bi di bési gàmmu nabi sallallahu alayhi wa sallam pour wone vraiment war nañu am mbégte ci lii ñu fi indi mooy di màggal guddi guddi sang bu tedd sëriñ bi nag fàttali naa suñu jaar-jaar sama diggante ak moom sëñ Ababacar dana yàlla yokk ay fanam may ko yokk ko wér ak kattan sumb yi mu def mu mottali euh, sant naa ko bu baax gërëm naa ko bu baax sant naa leen it bu baax ndax li ngeen ma téye te it seede bi sëriñ Maodo def sànq su du loon mbëggeelu xol du ko def parce maa ngi dem kon ki lay feddali cofeelam ak mbëggeelam ci ba ngay tàggatoo kooku jàpp mën nga jàpp ni ku la bëgg te ba mu koy wax boobu sore naa fonction yi loolu nag dafa am solo ndax àdduna teraanga ak cofeel daf ci am solo kon sëñ bi maa ngi lay nuyu di la wax nga jot daal waat ñu suñu nuyoo suñu mu gën a rafete ci bi xamal ko ne bëgg nañu ci moom bëgg nañu ci Tiwaawan bi yëpp maa ngi nuyu sama benn papa bu ma gis fii sëñ euh, Mody Ndiaye Abdou Mody sëñ Abdou Mody di ko ziar di ziar fi nekk ñëpp di ziar nag ak di gërëm samay responsable politique du département bu Tivaouane ndax Tivaouane tam dafay xolu Sénégal di xolu Kajoor moo tax lépp lu ñu fi def lu jaadu la ndax dafay ubbi Kajoor jëm Bawol ci wàllu wële ubbi Kajoor jëm Njàmbur jëm Fuuta jëm cap kon désenclavement département bu Tivaouane autoroute bi ñu fi indi bu ñaareel bi daanaka bu ñu jógee Ndakaaru Tivaouane jëm Ndar li ñu fi def ci ay yoon ba ci yoonu Mexe jëm Cilmaxa Mbaaxoon ak yeneen ak yeneen bëri na lu ma si ñëwaat ci ay programme ah dafa nekk lu jaadu dëkk bi moo ko solo am naa yaakaar nag ñii ma fi bàyyi. te mu ngi leen di ñaanal yàlla jàppale leen ngeen jàppale leen itam waaw bi moom am na solo ñaani am na solo waaye tam fagaru nag bésu woote jóg dem bu mu xat-xat dugal urne bi dugal bulletin bi am na ci solo ko suñu papa ju baax ji doon defee seen Abdou Aziz ala joxe donner l'exemple donner sa contribution te mënoon na ko si bañ a fekk kon organiser wu jàppale du jàppale ñu ma fi bàyyi du jàppale ma rek may jàppale réew mi la jàppale Sénégal réew mi dafa war a nekk ci dal dafa war a nekk ci jàmm dafa war a nekk ci naataange itam yàlla def na am na dañuy xaar doon ko wut bu yàgg ba tey loolu bu ñëwee yàlla ko Sénégal muurloo nekk njëriñu askan donc loolu waa bëggoon bésu tey bi ne euh, leen daal kontaan naa ci sama diggante ak yéen ci at yi yàlla teg ma ci bopp réew mi kon nag sëñ bi jërëjëfati santal ma xale yi santal ma njaboot ci mbokk taalibe yi maa ngi sant ñëpp di gërëm yooyu